mbokki xarit yi seetaan ak déglu sorti dal ci ak jàmm tey jii nag ci samedi gi ñu ciy dalal euh, monsieur wala euh, maître Souleymane Ndéné Ndiaye nekkoon euh, premier ministre du Sénégal waaye itam jiite parti bi di UNP nekk suñu gan ci émission sorti maître wala premier ministre maa ngi lay nuyu di la dalal ci émission maa ngi lay fay soxna Ndeye Fatou di la ziar di la yóbbante ziar ci sama xarit sama sëriñ Sëriñ Assane di nuyu bu baax di ziar euh, sama mag si euh, Sidi Lamine di nuyu aussi ñi nga xam ne ñu ngi seetaan wal fajri te ñu nekk à travers tout le monde di leen gërëm yéen ñi nga xam ne yéen ñëw sama kër tey pour def émission bi oui ñu lay sant nag ci nit ñu dalalee mm. euh, tey ji nag maître ñu toog ak yow xam naa li ñu war a wax dina bari ndax ku toog ak ku mel ne maître Souleymane Ndéné moom du ñàkk ne waxtaan wi dina riche ñu dooree ko nag ak li nga mujjee wax ci semaine bi Euh, mu di euh, benn waxtaan boo seq suñu naataango yu nekk ci las quotidien li ma ci marqué mooy nga ne yow euh, mauvais opposant nga maanaam doo opposant bu baax. Mhm. lu tax lu waral loolu. alors ni ma ko waxee. Mhm. mooy li ñu ràññee ci opposant mooy kuy sànni ay xeer man sànni wu ma xeer. Mhm. kon nag mauvais opposant la. waaye sànni ay nen de. non du waaw yenn saa rek sànni xeer yu ndaw. Euh, euh, parce que jàpp naa ne am na jaar-jaar yoo xam boo ko amee am na loo waratu la wax am na loo waratu la defee mm-hmm. ndax man dama am parti boo xam ne da ma bëgg ñu investir ma ma ñaan yàlla sénégalais yi ànd ak man mm-hmm. ba ma nekk président wu Sénégal ma won leen naka lañuy ñuy suqalee réew kon nag soxlawuma wax ci Masamba wala Mademba pour def politique. Mhm. moo tax ma ne opposant bu bon la euh, dama natt suma bopp rek ak ñi ma gis yeneen gars yi di defee. waa léegi euh, bi nga choisir ak euh, bi ñëw ñu def bu gën. non man jàpp ne mooy gën a mun a. apprécié wu ma ci bu gën ak bu gënul. Mhm. man li ma xam mooy. Mhm. bëgg naa bu may wax rek ñu déglu ma ma xool ñi may déglu xam ne li may wax ni ku ko doxal dina. moo gën li fi ne. Mhm. foofu nag looy soññi ñi nga xam ne opposition jàppee wuñ ko lu mooy ay déballage invective kenn ku nekk. ak mhm. na ngay doxalee man duma ma joxe katu ay leçon mhm. man ni may doxalee xëy na am nañu ko apprécier wu. waaye man noonu lay doxalee kon nag du ma fi nekk di apprécier lu ma Samba ak ma Demba di doxale ndax ni ma yàlla bindee. noonu la ma bindee. Euh, ni yàlla bindee keneen noonu la ko bindee te it euh, dafa am lu jiitu euh, position yi ñu nekk nii. mooy diggante ay doomu aadama sama diggante ak ki fi toog te yàlla teg ko fi muy président Macky Sall. waaw euh, munul am ay waxante wax yu ñagas. waaw moom sax laa la doon bëgg laaj ndax loolu euh, frein bi taxul. Euh, frein la le fait que yow président Macky Sall ngeen nekk xarit. am jaxasoo am safwante bu jaar la frein la frein la frein la ci benn wàll mais ci geneen wàll gis bu fi keneen toogoo nit. Mhm. defe naa ne duma ma changer tellement li may opposé wu. ah yow lii mooy sa style. mënatuma xasteeg saaga. yàlla teg na ma ma nekkoon premier ministre du Sénégal ñi fi nekk premier ñi fi nekk nii ci champ politique bi ñëpp maa leen gën a yàgg ci fonction premier ministre maa leen gën a yàgg ci fonction ministre maa leen gën a yàgg ci euh, ci ci système bi daal. Mhm. ndax man diggante 2012 2000 ba 2012 maa ngi woon ci wetu Ablaye mhm. kon nag am na loo xam ne warutuma ko wax man. mais expérience boobu nga am euh, boo ko méngaleeg bi nga xam ne moom la ñu premier ministre régime président Macky Sall tàmmal mu di. Euh, waxante xaxarante ndax gis nañ ko diggante Abdoul mbay bi mu fi jógee ak Mimi ture Mimi ture ak Mohamed Boun Abdallah Dionne ba tey ji ci coowal pétrole diggante Abdoul mbay ak Mohamed Boun Abdallah Dionne man du ma jugé kenn mhm. daal li may def lay wax mais nooy analyser le premier ministre benn analyse ma ci def loolu seen affaire yi bopp la dañ ko gérer seen bopp mhm. maa ñoom ànduñu woon démb ànduñu tey kon nag vraiment du ma wax seen i wax. waaw mais nangu ah, nga ne ñooñu dañuy def yëfu fusible. maanaam comme man loolu moom man man du ma apprécier loolu. ma daal ku ne ak na ngay doxalee. man du ma doxalee noonu. ñoom ñu ngay koy doxalee. ku ne ak na ngay doxalee ak na ngay gisee. Mhm. waaw mais comme doo euh, critiquer doo sànni xeer xanaa. kon non dinaa critiquer attention dina critiquer. Mhm. dinaa critiquer dinaa ne li baaxul. Mhm. am na domaine yoo xam duma ci dugg. waaw am na loo xam ne duma ci dugg duma dugg ci affaire famille yu Macky Sall. Mm-hmm. du ma dugg ci affaire u rakam affaire u euh, soxnaam affaire u beau-frère du ci dugg parce que dafa lu may tere ma dugg ci. Mm. waaw ngoro ma ko tere. Mm-hmm. ak aada ak euh, daal àddina moo ma teree dugg ci yooyu. Mm-hmm. waaw parce que nag nit ku ne am na ay limites ci li mu war a wax ak li mu war a jëf ak doomu aadama yi. Mhm. ah ndax doo tax nit ñi xalaat ne opposition peut-être de contribution. non man mun ma nekk opposition de contribution ku ma xam rek xam ne. Mhm. ànduma APR ànduma ak Macky Sall. ko wax. waaw ba sa parti ba léegi bañ koy ba may déedéet ba léegi maa ngi koy wax. Mhm. waaye 2012 ba léegi am na ñu naan ah moom daal léegi mu dugg mu def. ñoo ngi xaar présidentiel de. très bien alors bu xanaa ña doon xaar loolu ba léegi war na ñoo xaddi nag. ah 2019 xëy na dina leer. incha allah yal nañ ci yàlla yóbbu. amiin bu neexee yàlla. Mm-hmm. bu 2019 jotee xanaa bu sampee ma samp. Mm-hmm. dañ naa moo ne nguur si de dañ doon wax rek waaye la ma waxoon dëgg la de man nag lu ma wax rek parce que euh, je suis cohérent. Mm-hmm. du ma wax mukk dara taxawee neneen jamais de la vie dee ma ko gënal. ah mais président Wade tam am na candidat yu mu créé woon de ba moo leen joxoon sax seen caution gis nañ ko. avec président Abdoulaye waaw en ay ay candidat yu mu joxoon caution loolu moom yëguma ko man. Ah. barke Serigne Bamba yëguma ko. Ah. kan la ci candidat yi wax ma waaye dimbale ci rek yow tam. of the record. of <laughs> ñu bon xam nga président Wade nag. Mhm. dañ ko mënul natt ak kenn fii ci champ politique bi. ndax lan ndax moom dafa doon euh, acteur politique boo xam ne. Mhm. kuy politique fii rek moo la ëpp xel moo la gën a yaa xel moo la gën a xóot xel kon nag lu mu def rek am na lu ko waral loolu. waaw lu mu def am sax waaw moom xam nga mënuñ mënuñ natt suñu bopp ci ci moom. ci président Wade moom dañuy jéem a jàng tuuti rek. Mhm. ci lim daan def ci lu baax. waaw waaw ñu di ko topp. waaw ba tey sax li lim doon def ñu mën ko natt. Euh, am na benn lettre boo defoon euh, maanaam lendemain libération Karim Wade 23 juin. waaw euh, ñëwaat ci ci sa compagnonnage ak Wade ñëwaat ci ci 23 juin 2011 mais li ma ci marqué mooy noo mënee rëdd boobu la bataaxal. tombeek ñu génnee Karim Wade da nga amoon xëy na information si ne dañ koy waaj a génne non non Karim Wade biñ koy génnee maag Sénégalais yëpp a ko yëgandoo mhm. dama xëy suba rek gis ko ci internet parce guddi lañ ko génnee mhm. comme tooguma di euh, xoole ba heure boobu bu muy mhm. suba laa ko gis tombe nga bind sa lettre boobu alors ñëwaat ci événement 23 non dama way dafa tombe xam nga 23 euh, juin dafa di date bu marqué euh, histoire politique bu Sénégal te mu am lu bari loo xam ne man. Mhm. en tant qu'acteur. Mhm. Euh, am na lu ma ci xamoon. am na lu ma ci dund am na lu ma ci fekkee. Mhm. révélé wu ma benn secret. ku mel ni man. ak position bi ma amoon. Euh, mënut a révéler ay secret. mais réew loo xam ne ñun ñëpp a ko dundandoo mu des ci histoire Sénégal kenn acteur bu nekk war nga caa wax la ca xew. waaw mooy daje yi ngeen doon daje ñëwaat nga ci daje yi ngeen doon daje. ak proposition beeg. voilà fi di jaar ak yéen yëpp yooyu yëpp. Mhm. loolu yëpp wax nañ ko euh, la tax ñu gagné ñu élection. te 23 juin la jóge mhm. parce que ci la ñu secoué le cocotier. te après 23 juin y a eu le 27 juin c'était encore plus sérieux mooy euh, yëngu boobu gaañ yëngu woon. ci wàllu bi ci wàllu courant bi. waaw bés booba amoon nañu comité directeur. te bés booba euh, Karim Wade ñaan na ma ma génn saal ba ma jël sama téléphone parce que amatul woon benn litre gasoil ci ci centrale yi ma jël sama téléphone téléphoné Baba Diaw mhm. booba am na bateau bu mu indi boo xam ne seen Senelec amul lu mu ko fayee mu ne ma wallahi loo ma ñaan ma defal la ko mhm. dinaa leen lâcher vingt mille tonnes ma téléphoné ma dema soog parce que le Soutelec était en grève mhm. ñu ne duñu wàcc même bu ñu indee affaire yi ci centrale yi yi duñ ko wàcc dugal ko ci euh, réservoir yi. waaw ma oo oh, ma Demba Sock c' est mon ami c' est mon ma ne ko dimbale ma rek ñu def loolu mais malgré tout. Mhm. Euh, amoon na ay coupures yu massive waaw ci la ñu lakk kër Serigne Mbacké Ndiaye kër maître Abdoulaye Babou. Mhm. kër Oumou Khayri Gueye Seck. ak feneen ak feneen ak feneen. Mhm. donc euh, loolu beneen alerte la. waaw. mais nu ngeen dundee instant yooyu da ngeen. ah instant yu difficile en tant que ah, suis allé voir le président Wade à deux heures du matin. le 27 boobu. le 27 juin. Lamine Faye moo ñëw sama kër. ne ma il faut nga dem seeti président nga waxtaan ak moom. Mhm. ma dem seeti président parce que dama yor tolkiwul ki yooyu alkaati yi di yor. di xam li xew agressé nañ kii ah euh, gars yi ñu ngi jublu boor bi ñu ngi dem lakki aéroport ñu et cetera. waaw da nga doon suivre événement yi dama mhm. doon li muy maa ngi ak sama oto di di di dox di xool a ah oui à deux heures du matin ma dem palais seeti président ne ko est-ce que yëg nga li xew mhm. mu ne ma wéy ñu may rendre compte ma ne la situation est très sérieuse alors la ma fa wax ak moom aussi du lu may wax ci mhm, mhm. mais donc ce jour la euh, une alerte oui. sérieuse je crois que c'était un jeudi bu dul mardi di jeudi le 27 juin 2011 mhm. alors euh, donc deuxième alerte la bu graw boo xam ne yàggul sorewul benn yoon ak bu 23 ak juin mhm. yooyu yëpp dal ci seen nguur alors loolu yëpp dal suñu nguur mhm. euh, defoon nañ ne dinañ mën a redressé wu avant ñuy dem parce que aussi xam nga kuy dem élection toujours da jàpp ne sa bilan mooy sa avocat te bilan bi rafetoon na ndax président def na fi ci diir bu gàtt loo xam ne président Senghor defu ko fi ci ñaar fukki at président Abdou Diouf defu ko fi ci ñaar fukki at moom ci diir bu gàtt mu def ko fi li ci nit ñi di waxak ak xas ak ŋaañ yëpp wax ji du fi jëlee jëf ji. benn kilifa gu mag dafa ma ne bés ah xaw ma luñ koy waxal daal waaye da dugg ci dëkk ba génn ko te gisoo lu mu fa liggéey waaw loolu moom lu am la waaye nag malheureusement. Euh, bilan bi. léegi lu ko lan moo ñuulal soow bi. ah non li ñuulal soow mi xam nañ ko dévolution monarchique du pouvoir premier tour. candidat yi lañ doon wax te président weddi ko. waaw ku mel ni Cheikh Tidiane Gadio yàgg ak président waat liggéey ak moom ba 2009 ba mu génne loolu la yuuxu fu ne. ñëpp du moom rek du Gadio rek. Mm-hmm. ñëpp a ko doon wax ndax ni yëf fi demee woon la yëf yi demee woon. Mm-hmm. dafa wonoon ñëpp ne euh, même bu ko mos mosu ko wax kenn nag. ndax bu ko gars yi wax doona leen je n'ai jamais dit à personne que je vais donner le pouvoir à mon fils waaye nag je ne suis pas bête je euh, Bush n'est pas plus intelligent que moi encore moins Eyadema et Bongo Bongo <laughs> alors man bés mos naa wax euh, Assane Ba mhm. bi nekkoon ak Abdou Karim Wade waaw ma ne ko le ne ni le Gabon ni le Togo xam naa mu neen rapporté ko président benn bés benn réunion rek <laughs> mu ne même de moi on xam naa man la boobu man nag ministre d'état directeur de <laughs> ma ne ko Assane Ba gis nga le Sénégal ne nii la Togo mhm. yow mi ko jege woon li ñu doon rumba ah lu mën a nekk la ah wala lu ah nar a que gis naa ni mu doon doxee man nekk naa ministre d'état directeur de cabinet. Mhm. président gagné élection 2007. conseiller juridique am Yves Gounin ñëw indi arrêté de nomination des membres du cabinet mu def ma deuxième position. atek kan première position. Karim Meïssa Wade ma xotti arrêté bi defaraat arrêté yóbbul ko président mu signé ko. mooy kon depuis 2007. la Karim waroon a dugg ci ci attelage gouvernemental avril après la prestation de serment du président Wade bi muy recomposer son cabinet mu reconduire ma comme ministre d'État directeur de cabinet. Mmh. Yves Gounet conseiller juridique bi mu defee dama ko convoqué mu ñëw sama bureau ma ne ko qu'est-ce que vous avez appris à l'université mu ne j'ai fait diplomatie ma ne ko comment vous retrouvez vous êtes vous retrouvez conseiller juridique du président mm-hmm. ah ma ne comment voulez-vous que moi directeur de cabinet avec rang de ministre d'État que je puisse être derrière quelqu'un mm-hmm. vous l'acceptez vous vous le concevez comment vous ci kanam ma xotti arrêté bi defar beneen arrêté mm-hmm. ma ne ko mais ministre d'État ki nekk directeur du cabinet bi mënut a nekk ci kanam ak benn conseiller mais loolu noonu noo ko mën a jàngatee ak homme d'état bu mel ni président Wade yàgg opposition président yëgu ko nekk avocat président yëgu ko ak ak war a am sañ-sañu def non ko président Wade euh, xam naa ko bu baax président Wade euh, c'est un homme de valeur ku ku parce que juriste la loolu énormité la sur le plan juridique mhm. président Wade du du du couvrir loolu amee ah, ku mën a sañ def loolu. pour président di ko signer non président parce que xam nga conseillers yi. bala bu ñu defee lu mënta xew di jëm bureau président sama bureau lay jaar man may directeur de cabinet. Mhm. sama bureau lay dem ci président dem secrétariat président président du santaane loolu. kon Karim moo ko santaane ah je ne sais pas je ne sais pas mën naa teg sama loxo ci kaamil ma waat ne loolu président defu. ah loolu di doy na waar xam naa ke ko def bu ko setaanee dina fàttaliku nam ko def doxalee woon <laughs> waaw mais ñu ñëwaat ba tey ci bataaxal boobu noonu libération Karim Wade niñ ko defee niñ ko rëddee man daal vraiment kontaan naa ci liñ bàyyi Karim ndax jàpp naa ne mën naa waat na niñ def ba jàpp ko jaarul yoon maanaam injustice la ah way xam nga euh, enquête mooy précédé arrestation ak emprisonnement mhm. mais munoo jàpp tëj kaso di wut ay preuve mhm. droit pénal du tëggee noonu te loi bi li mu waxoon bu ñu la placé sous mandat de dépôt six mois mënuñ ko renouveler dañ organiser procès dans les deux mois mhm. mais ñu renouveler mandat de bi di wut ay preuve te li gën a garaaw mooy liñ ne preuve la jël ay société jàmbur yoo xam ne statut yi turu Karim Wade nekku ci amul benn yoon boo xam ne am na link ni bancaire mhm. ni autre entre Karim ak ñeneen yi ñu bëgg loo moom loo par force Karim société yi mhm. loolu lu loolu dafay heurter le bon sens fañ jaarale yi fii du foofa Karim dañ koo tooñoon donc buñ ko bàyyee Mhm. dama naan alhamdulilah. mais anam yi nag. bàyyi ko une heure la def euh, biir. Euh, waaw loolu moom nag Dakar jël jëpp privé dem Qatar man daal li may rafet lu mooy. Mhm. bàyyi gi li ci des nag moom sama yor nekku ci xaw ma nuñ ko bàyyee. boo nekkoon premier ministre. ci époque bi ñu ko defee di nga daal te yooyu noonu. ah <laughs> bu fekkee ne kay loolu moo arrangé régime ba régime ba def ko kooku kay dama nga posé leen question bi man daal li ma doon ñaan yàlla moo ñu bàyyi Karim bàyyi nañ ko. Mhm. alhamdulilah alhamdulilahi rabil na bàyyi nañ ko dem na mhm. ñu wéy ba tey eh, ci waxtaan bi ak maître eh, Souleymane Ndéné Ndiaye eh, yow jiitu UNP gis nañ la temps yi passé nga lëngoo ak ñeneen ñoo bokkaloon PDS mu di Modou Diagne Fada ak Aliou Sow UNP ba créé sax EFOP entente boobu noonu kii jonction bi ngeen ko li waraloon suñu coalition boobu man suma xarit Modou Diagne Fada ak suma xarit Aliou Sow. Mhm. ak suma xarit Mokhtar sourant ak ñu bari ñu bokkoon ci EFOP. Mhm. dafa tombeek ñuy réviser code électoral bi. Mhm. ak fichier électeurs yi. Euh, comme man ak ñooñu xamante nañ miinante nañu. Fada li ma koy mag mag bokk nañ UJT. Aliou Sow moom maa mag lu bari mais Fada. Euh, li ma koy mag mag mag moom bokk nañ UGT bi mu ñëw université ñun fekk na booba ñu génn ba euh, donc mais ñu bokk toujours structure u jeunes yi. kon nag mag moom am nañ diggante boo xam ne euh, du du woon jafe ñu bokk coalition ndax am na cofeel am na xaritoo am na xamel sama digganteeg moom ak Aliou Sow. Mhm. ak Mokhtar Souran mi nga xam ne maa ngi moom ñu bokkoon amicale des étudiants la fac de droit. te moom parteem tudd UNP. waaw moom sax temps dañ doon wax naan yéen a ngi doon. am benn bataille de non ak non mosuñu xëccoo parce que man ah ah. suñu parti ñun union nationale pour le peuple la. moom union nationale patriotique te ñun union nationale pour le peuple bokk jëmu. Mhm. donc amuñu benn problème. souvent sama xarit la. Mhm. sama rakk la euh, vraiment euh, maa ngi koy nuyu di ko. Mhm. sargal. waaw voilà donc. coalition boobu ñu defoon euh, objectif bu. précis la amoon. Mhm. dañ ko defoon ci wàllu révision fichier des électeurs ak code électoral. waaw maintenant euh, dépassé guñu nag euh, beneen plan pour mu nekk une coalition politique u électorale. Ah, yaakaar naa ne mën na am. Mhm. ñu waxtaan. Mhm. man ak ñoom xool naka la ñuy.

moom bu ñoom PDS beeg. réew meeg kenn invité ma ca. mais man Modou Diagne Fada ak Aliou dañoo toog waxtaan ne dañuy mettre am ak Mokhtar Souran ak ñeneen. Mhm. ne dañuy toog waxtaan bokk ci coalition. lu tax bokku leen ci bee nga xam ne. moom la ko jéggi yëpp woowuñu ma ca invité wuñu ma ca. waaw ah, ñoom ñoo la woowu. waaw woowuñu ma ca invité wuñu ma ca. te yow it demoo fekk. non pourquoi. est-ce que du PDS moo waral loolu. non li nga xam ne moo leen. boole PDS moom boole ca PDS ba léegi moo leen. topp lu ma am PDS dama ko gënal. ah i nekkatoo ca de. ca waaye waa PDS mënuma leen na noonoo jamais au lu ma am PDS la. kon bu ma la déggee ni ngay waxee ni génn nga PDS mais sa xol génn fa. non sama xol ak sama jëm ak sama lépp génn na PDS waaye mënul tax nag vraiment ba man samay xarit di ci ëpp PDS lañ rek. Hmm. Ah, waaw. lu ma am Ablaye Wade la lu mën Ablaye Wade la. waaye mun maa bàyyi Ablaye Wade génn naa ca parti ba waaye sama xol munul bàyyi Ablaye Wade mhm. mais effort boobu nag euh, tamit ni ngeen dajalooyee noonu te ku ci nekk ci yéen dañuy naan am na lu ko jokkale président Macky Sall est-ce que loolu non non man loolu moom loolu moom euh, moo xam ñu gëm ma wala ñu bañ maa gëm mhm. man duma kuy complot wala kuy wut dara ci président Macky Sall kooku moom na leer ci bopp ñëpp mënu maa waxal keneen nag mais mun naa waxal sama bopp mhm. waaw ok man négocié wu ma poste. Mhm. négocié wu ma dara. même bu fekkee ne je suis un mauvais opposant mhm. am na euh, jéego boo xam ne duma ko def. maanaam dugg ci nguuru président. non loolu moom xalaatuma ko. bu la nommé woon premier ministre nag. ma ne xalaatuma ko waaye xaw ma la may la may defi ëllëg xaw ma ko waaw xalaatuma ko. Mhm. vraiment. waaw ñu dox nag ci beneen sujet mu di li ñu fi jëlee li ñu fi jógee yàggul dara mu di euh, wàllu élection au conseiller mm-hmm. des collectivités territoriales woote ba jàll nan nommé nañu ay nit waaye élection bi am na beneen lecture buñ ci mën a def mu di Dakar moom Khalifa Sall mooy le waa de Dakar xam nga euh, képp ku toogoon di am yaakaar ne mm-hmm. keneen ku dul Khalifa Sall mën na ko gagné da ngay rêvé da ngay gént Abdoulaye Diouf Sarr parce que 2014 mm. bi ñu defee élection essentiel u commune d'arrondissement yi Khalifa Sall moo ko gañ ay wala ay nitam kon nag conseillers yooyu ci diggante bi luñ leen corrompre mu corrompre mënuñoo jënd ñëpp am na ñoo xam ne kenn du leen jënd donc il fallait rêver pour espérer que euh, keneen mën naa gagné ku dul Khalifa Sall ah pourtant jël nañu liste fukki maire yoo xam ne dañ ne woon ñii ñëpp ma ne loolu ay wax la rek entre la ñuy wax ak réalité bi toujours gis du correspondre mhm. maa ngi félicité xalifa Sall maa ngi koy félicité mm-hmm. maa ngi koy encouragé parce que nag nit bu nekkee ci dara dafa koy gëm mm-hmm. conseil yi àndoon ak ñoom ay gor lañu wor baaxul te boo waree ren ba déwén nettali ko rek keneen na ko nettali à ta place mm-hmm. waaye nag bennoo moom ba léegi mën nañu oui mais que ndax boo xoolee bu weesoo Ndakaaru xam nga li gën a jafe mooy euh, nga ronxi koo xam ne ci feneen la nekkoon boo xoolee élection euh, locale wu 2014 yi. waaw mais Benno moo ëppoon commune ci Sénégal. Mhm. donc c'est à juste titre que bu ñu defee élection yi aussi même bu fekkee ne am na ñu jógee ci ñoom dem feneen parce que ñun département de Koupentoum bi ñu bokk. Mhm. bi ñu bokkoon ci élection parce que foofu rek la bokkoon. waaw am nañ fa ay conseillers te ñun 2014 bokkuñu woon ci élection. Mhm. ñoo jël troisième foofu ci département de Koupentoum. ci élection yi élection au conseil yi au conseil amoon na fa liste. Mm-hmm. bokk jëmu as joo bokk jiite woon mm-hmm. c'est un te am na ci ay voix am na ci ay voix kon nag mm-hmm. euh, euh, vraiment que Benno gagné waaw mais ñoom nag ñu ngi fëgg seen i dënn non non non mais jaru ko ba tey ñoom ñoo moomee te lépp lu jëm ci électorat bi ñoo ci xam nga nag euh, ay grands électeurs ñoo bokkoon ca élection ya ñoo xam ne ay conseils départementaux lañ conseils municipaux wala ay élus nationaux députés yi boo xoolee corps électoral bi mille xaw ma ñaata la boo xoolee corps électoral du Sénégal aujourd'hui ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo nekk ci fichier électoral bi cinq millions nangam lañ ñooñu ak boo de xoolee rapport bi c'est presque epsilon. ah ñoom nag nee na ñu gagné. boobu su leen neexee. wan na leen ne ba léegi seen doole bu ñu gagné ku ga ku dem ci compétition gagné da nga kontaan. Mhm. macha allah waaye nag euh, nañu xaar ba élection nationale ñu xam. kon jarul ñuy defaraat sàppe wala. ñoom seen sàpp yi ñu defaraat ko. wala fi mu toll nii moom sama yoon nekku ci. man mm-hmm. daal waxuma seen wax. man samay waxi bopp lay wax. waaw mais opposition bi tam ndax lii tam du leen yeer ndax boo ko xoolee depuis 2012 président Sall wala benn Bokk Yaakaar ñooy gagné élection yëpp. waaw ma ne xam nga te ñoo ngi dëgmal législative xam nga président Abdoulaye Wade 2000 ba 2012 moo ëpp lu mu gagné waaye te 2012 ñu gagné ko malgré son bilan malgré son bilan dañ ko gagné. Mm. kon yaakaar naa ne élément d'appréciation yi ah bari na. li ah. population yi di apprécier. pour voter dans un sens ou dans un autre loolu population yee ko xam nañu xool diggante 2012 ak tey est-ce que individuellement pris sénégalais bu nekk li ngay dund tey moo dàq li nga doon dund démb loolu mooy déterminer votu sénégalais yi. yow loo gis ci dekk nekk ni Sénégal. alors ah ku koy euh, natt ko sa bopp rek yow. nga xool li nga mënoon tey li nga mënoon démb ndax mën nga ko tey boo ko nattee sa bopp rek da nga xam ma euh, bu fekkee ne sénégalais bu nekk li muy dund tey moo daq wala moo gën a naqari li mu doon dund dem mais nag euh, élection au conseil yi euh, dina fi teg ku mel ni Ousmane Tanor Dieng mu di beneen organe boo xam ne. dina suma xarit la suma grand frère la moom rek. Mm-hmm. lay def bu korite jotee wala tabaski ma sol suma daal dem këram ci responsable politique mm-hmm. jàmm laa ko yéene bu amee teraanga jooju maa ngi ko ci félicité waa mais kuréel gi nag kuréel gi yeeg nu mu mënta demee maa ngi ko ciy sant yàlla na ko yàlla dëgëral yàlla na ko yàlla dooleel du ma ko wax lu bon du ma ko wax lu ñaaw waaw mais nag ñu jàngal nag kuréel bi nag nag mais gi daal du ma ci wax kuréel gi daal li ma ci wax mooy la ñu sosaan soixante-dix yi président mooy toog ci bureau daal di bind soixante-dix personnes taxul ma nettali la loolu moom jaaduwul mm. buñ ne buñ koy wax rek euh, compétition tax. 150 mhm. postes yi la ñu waroon mettre en compétition waaye nag comme loi bi moo prévoir ne président moo war a nommer loi ba la ñu war a changer loi bi baaxul xam nga président Macky Sall élève wu Ablaye Wade mm. mu fi créé Sénat noonu la defoon. waaw. jël 70 membres yi nommé leen xaw ma 80. 65 yi ñu moom la ñu kii voté loon. voilà yi mu nommé leen. alors président Macky Sall comme ndongo président Abdoulaye Wade la mu ne xaaral ma jaar fa jaarale bu mu ca ba bay ga ñi nga xam ne dañ leen a bàyyi woon en rade ñu commencé ñaxtoo ko mer mu ne xaaral ma ku ci ne ma compal la dara jox la xëy na da nga loolu ndax dina ko euh, am gañeloo euh, sur le plan électoral. je ne sais am gain. on on kooku nag xam nga wax lu ñëwagul dafa jafe. Mhm. donc nañu xaar. mais yow en tant que euh, observateur waaye yow ku yaa ngi ci politique analyste xam ne li lenn li bu ko njit defee dana am lu mu ciy am. non xam nga aussi li gën a jafe ci àddina mooy di wax lu ñëwagul. Mm. te man bëgguma di jiwum di def analyse boo xam ne du nekk analyse spéculation lay doon. <laughs> analyse spéculative di wax rek théoriser. ah parce que li ngay théoriser. dafay uute trop ak réalité yi sur le terrain. concrètement boobu kuréel din amal ñu njëriñ soxla nañu. concrètement soxlawuñ ko. concrètement parce que gisuma lan lay yokk ci li ñuy wax ay décentralisation. yu ma mhm. xam bu fi nekkul woon lum ñuy wàññi bu fi nekkee lum ñuy indil xanaa lim ñuy coûter ñu jël lu mal ni dix milliards ci budget bi nga xam ne mënoon naa jëriñ leneen. Mhm. Euh, yóbbu ko fa jox ay nit ay position yoo xam ne. xëy na dina leen mën a renforcer sur le plan politique. Mhm. ba tey ci wàllu politique ak actualité bi maître Souleymane Ndéné Ndiaye jiite woon euh, gouvernement bu Sénégal mujj bi nga xam ne président Ablaye Wade moo fi toogoon euh, pétrole malédiction bi ñu ci wax maanaam gaaf yi ñuy gis ci pétrole réew yi mu am. non dañuy wax rek vraiment li mu jur ci wàllu pétrole mu amul ñun yàlla coow yëpp. Ah, fay Cosmos énergie fii. Euh, man li may ñaan yàlla. Mhm. mooy coow bañ a am. que pétrole bi indil Sénégal njëriñ. door na de. waaw mais coow moom. xëccoo bi mu koy door de fi mu yaa ngi teg loxo Sénégal bëgg fi am ay. kii ma ne exploitation. xam nga lan lu tax Sénégal du bokk yeneen réew yi. Mhm. pétrole sukkandikuwuñ ci pour euh, tabax réew mi ndax ba léegi exploitation pétrole participé wul suñu PIB ba participé wul ci suñu revenu national. kon nag ñu ngi dund te amuñ pétrole kon nag bu pétrole amee day yokk suñu koom mhm. waaye na fekk nag ñu yor ko euh, dans l' intérêt euh, supérieur des populations rek lay ñaan yàlla gisagum ko ko Sall mi ngi ci tudd ak yooyu noonu ma ne Aliou Sall it su rakk la mënu ma ko wax ak bàyyi lu ne ñu ko ci wax waaye nag mm. euh, man daal naa toog rek ba ba gis loo xam ne euh, jaarul yoon. waaw moom mën a def commentaire. Ah, mais ah am na lu ci Sonko Ousmane Sonko relevé de. waaw euh, Ousmane Sonko ci 90 milliards yi nga xam ne. Euh, waroon nañ ci fay ci waaw loolu loolu ma ci dugg parce que xaw ma ci dara. te man du ma wax lu ma xamul. Mhm. waaw xaw ma ci dara dara dara ndax liggéeyu ma impôt domaine xaw ma ci dara. waaw moom mi ci liggéey de moom moo ko wax. waaw mais bon bu ko waxee am na lu mu ci xam. Mhm. léegi lam ci xam ak yi mu yàgg a wax ci booba euh, am yenn sortie médiatique yu muy def en tant que président parti Pastef ñu dem ba rajjee ko fonction loolu moom lu garaaw la ci démocratie booba ci euh, dollee li ministre fonction publique wax ne Viviane Bampasi fonctionnaire warta critiquer président de la république c'est particulièrement grave kooku ci ban réew la am ah moo ko wax de fonctionnaire warta critiquer président la république président la république mooy mooy kat ba duñ ko critiquer président de la république moom danañ ko critiquer à juste titre. wala dañ ko critiquer ci euh, lu gratuitement. comme nag euh, président bi dafa def choix wu wàcc ci arène politique. ñeefeel boppam ba yàlla dimbale ko mu nekk président am na ñu ànd ak moom lu mu wax ñu ne gongo am na ñu àndul ak moom di wone ay faiblesse gestion. Mhm. yaakaaruma ne nit. war Sénégal war naa toll foo xam ne dañuy daq nit ci ci expression opinion. am na ci Ousmane Sonko de. Ousmane Sonko li ñu ko def c'est pas normal dañ ko jaay doole teguñu ko fenn amul benn secret bu mu révélé parce que moom wax na. ne leen li ma wax yëpp ci surtout ministère des finances. la ko moo ko kii de surtout affaire impôt assemblée yi mu waxoon nag alors kon nag sur quelle base lañ mën a justifier wala fonder radiation Ousmane Sonko lu dul doole. ak commission bi oo ko mu dem ak avocat am jotu. ñu ne ko benn avocat nga am droit. waaw loolu ci bi ñu raja rajee ko. ci bi ju xam nga dafa am euh, principe en droit. Mhm. bi ci njëkk mooy le respect des droits de la défense. bala ngaa tëj gàmmeñ wolof daf koy wax sax bala ngaa tëj gémmeñu. ñu sàmm nga xam lu muy wëlis bala ngaa rajee nit déglu ko sur ses moyens de défense. mais yow kii présenté wu sax mooy défense nga raje ko loolu lu muy waree doole. ndax yaa yor tribunal yaa yor alkaati yaa yor gendarmerie Ousmane Sonko mënta jëlal boppam dem ubbi bureau bu fa sax dugg bu fa duggee rek gendarmerie génne ko ca donc loolu moo war a jeex ci réew jaay doole baaxul. mais dafa mel ni du moom kese ndax ku mel ni madame Nafi Ngom Keïta it euh, loolu la dund ci. dama ne door ay enquête jaay doole baaxul ñu daal di ne mandaam jeex na. waaw bu mandat bi jeexee moom dafay jógee. mais mais est-ce que mandat bi jeex na. date prise de fonction lañ n'est-ce yow en tant que avocat. juriste euh, foofu sax ma bëgg nga waxal ñu ndax date prise de fonction la ñu mën a jàppee ne door nga liggéey bi wala ba ñu la nommé ca dëkk. Euh, euh, defe naa ni nag date bi ñu ko nommé. Mhm. ci la ñuy commencé ci la prise d'effet wu. Mhm. am. waaw ah, bu dee loolu de kon bi ñu ko. Euh, dégommer parce que bu fekkee ne dañu bëgg a jàpp parce que loolu euh, juriste yi euh, bokkuñu ci position mhm. ndax entre la date de la nomination et la date de prise d'effet de cette nomination là il peut s'écouler un temps est-ce que acte administratif bi ñu ko signé waaw mooy date bi nga xam moom lañ ko nommé waaw mu nekk vingt cinq juillet bi bokkul ak mars bi nga xam ne fa la alors xam nga bañ kon nommé rek jël na service commencé liggéey mënoo ne nag nommé nañ ma depuis juillet may liggéey waruñu considéré mu doon percevoir salaire dañu xool ban date la commencé percevoir salaire parce que man damay wax rek te yàlla tax waaw dafi ngoom keeta su ma mag la su ma xarit la bi ma nekkee directeur de cabinet euh, IG ci suma service la dépendroon kon nag mënuma xeex na fi ngoom keeta wala may wax lu lu contre na fi ngoom keeta waaye ne damay wax sama diggante ak yàlla dañu xool parce que bu ñu werante date de prise defee décision bi dañu xool ndax à partir du mois de mars la commencé percevoir salaire wala bañ ko nommé rek léegi commencé percevoir salaire dañu xool loolu ministre Seydou Guèye da nee na bañ ko nommé la alors bañ ko nommé donc date prise d'effet décision bi c'est à partir de la nomination waaw mais lu tax rapport kii reconduire ñu mandaam ndax mu ngi doon ah, liggéey liggéey boo xam ne président de la république nag mooy nommé mhm. ko neex ko constitution bi ko jox pouvoir boobu mhm. muy nommé di dégommé kooku prérogative am la xam nga dafa am lu ñuy wax pouvoir discrétionnaire. Mhm. loolu bokk na ci pouvoir de nomination. réew mu mel ni Sénégal wala ci atum 2016 pouvoir discré discrétionnaire boobu war na mën a continuer France am na fa. Mhm. pouvoir discrétionnaire moom dans tous les états modernes du monde am na fa. loo xam ne président yoon moo ko may mu di ko dogal. mais dafa mel ni Sénégal pouvoir discrétionnaire bi ci lépp. la nekk euh, xëy na li nga bëgg a wax du pouvoir discrétionnaire. Mhm. li li ñu a dépasser mooy haut fonctionnaire waxee lu méngoowul ak li président bëgg ñu dax ko loolu dafa war a jeex Sénégal waaw. kaa Sonko de ñëwaat loolu moom dafa war a jeex ci Sénégal. Mhm. di dax nit parce que bokkul position ak yow wala. Euh, wax na opinion boo xam ne bokkul ak li ngay xalaat. kooku moom dafa war a jeex Sénégal. waaw ndem avocat nga euh, xam naa ne benn dossier bi ñu bëgg a teg ci table bi moom am nga loo ma ci mën a yeggee wala looma ci mën a defal ci jàngat mu di dossier Aïda Ndiongue bi nga xam ne yàggul dara Cour suprême dañu génne dogal ne dañuy confisquer lépp luy. waaw euh, dégg naa dégg naa ko. malheureusement bi muy xew fekkuma fi. Mhm. Aïda Ndiongue suma mag la. Mhm. dañoo mbokk deret ca wàllu. waxtaan naa ci ak sama benn xaritu avocat. mu ne ma ci loi bi créé cour suprême. article cinquante. Hmm. may na cour suprême mu attewaat. ah mais man li ma jàppoon mooy. waaw la cour suprême n'est pas juge du fait et les juges du droit xam nga loolu muy teg. waaw kuy def pourvoi en cassation. ci hmm. matière bu mënta doon. à la suite d'une décision rendue en dernier ressort maanaam. tribunaux yi nga xam ne ñuy xool feey mhm. bu ñu attee ba noppi mu xam en matière civile wala en matière pénale ah, eh, madame Aïda Ndiong matière pénale la mhm. euh, ki mujjee atte mooy cour d'appel dañuy xool li cour d'appel atte mhm. lan moo ci conforme à la loi ak lan moo ci violer la loi ki nga xam ne mooy def pourvoi en cassation bi moo koy viser moo naan cour d'appel bi muy atte euh, violé na Euh, disposition sangam. ci loi pénale wala disposition sangam ci beneen loi bu ko suprême examiné. Mm-hmm. dafay casser arrêt bi sans renvoi wala mu casser ko renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel autrement composée. Mm-hmm. alors ci wàllu dossier madame Aïda Ndiong évidemment gisaguma arrêt cour suprême bi pour xam motivation wu décision bi. waaw mais suma benn xarit nee na ma. am na ci loi bi nga xam ne moom moo aju ci wàllu cour suprême bu bees bi loi bi ñu wotee woon 2010 xaw ma euh, année yooyu. waaw alors xam nga bi ñu fi jëlee conseil d' état ak cour de cassation lañ indiwaat cour suprême. waaw alors nee na boobu am na benn disposition bu ca nekk. Mhm. boo xam ne permettre na Cour suprême mu def lii mu def loolu nag il faut que ma vérifier ko pour mën a. Euh, waaw mais balaa nga koy vérifier li ma mën a wax daal mooy. Hmm? ma ne atte bi dogal bi ban gis-gis nga ci amal. bon atte bi euh, gis-gis bi ma ci am man day méngoo rek ak gis-gis bi ci loi bi am. Mhm. ndax euh, man moom lu loi wax rek laa wax. waaw lu loi wax rek laa wax kon fi ne ñu confisqué lépp. non non ñaanu ma ko yàlla ñaanu lu ko madame Aïda Ndiongue bañ koy entendre. di ko inculper man ak ndem si yàlla maître Moustapha Diop ak moom dong ak yàlla juge d'instruction beeg euh, greffier bi ñoo nekkoon ci salle bi. Mhm. fa toog ba ñu inculper ko inculper ñi mu àndaloon ñëpp génnuma salle bi bougé wu ma. Mhm. donc euh, man Aïda Ndiongue dama am ci moom cofeel goo xam ne mbokk ko lal. Mhm. li ko dal yéenewuma wu ko daan na jàppale PDS bu baax daan na jàppale président Abdoulaye Wade bu baax a baax. kon nag bu fekkee nañ ko atte en violation de la loi nañ ko delloo ci euh, dëggam. Mm-hmm. waaw. waaw man bokk naa ci ñi ko jàppale woon. waaw mais président Macky Sall tamit moom si ak ñi ñeen ñi ci jege naa ñaaleem nee na ñu da ko doon jàppale moom it. ah oui mais loolu man xamu ci dara su ma yoon nekku ci man ay ma suma jàppale xaw ma ku jàppale ku mu jàppale man man mosuma jàppale mais su ma mbokk la. am naa ci moom cofeel am naa ci moom euh, lépp daal. Mm-hmm. voilà. PDS sa parti boobu noonu. Euh, si présentation sama ancien parti sa ancien parti boobu sa présentation ñëw nga ci local yi 2014 euh, ni ñu doxalee ci conseil départemental bu Kaolack. Uh-huh. ndax dafa bokk si li tax nga génn fa. non euh, doxale wuñ fa nag lu ñaaw ndax man maa jiite woon list bi. waaw liste majoritaire. Uh-huh. campagne électorale bi man maa ko mëne woon. j'ai parcouru tout le département de Kaolack ak ñi nga xam ne tey ñooy conseil départemental. parce que ñi dem conseil départemental ba yëpp représenté uh-huh. PDS. Euh, ci liste proportionnelle lañ demee. waaw donc vraiment euh, treize lañ fa lañ fa amoon je crois. donc vraiment doxaluñu fa dara lu ñaaw. déet ci choix bi. maanaam choix bi man fekkewuma man tànnuma candidat yi. Mhm. bu doon may tànn xëy na dinaa tànn ñeneen ñu dul ña fa nekk. parce que euh, xam nga kuréel gu toll ni conseil départemental. Mm. dañu war a tànn nit ñoo xam ne am nañu benn dimension bi. Mm-hmm. mënuñu tànn n'importe qui. koo xam ne yow liggéeyuloo. xamuloo lu géej gi riir ñu jël la dugal ci kuréel gu toll noonu mais eh, lan lan lan ngay indi population yi et eh, je pense que loolu lañ fa defoon mu mu rafetlu woo ko woon non enfin mosuma ko critiquer nag mhm. mosuma ko critiquer parce que euh, ñun li ma importé woon rek mooy ñu gagné mhm. am na fa nag euh, am du ñëpp ah parce que euh, madame Mbenda Ndiaye moo nekkoon première ou deuxième mhm. Mbenda c'est une femme d'expérience ku jàng la elle elle a été engagé très tôt très jeune donc li muy wax xam na ko ah donc euh, LDM PT la nekkoon. Mhm. après mu ñëw rejoindre PDS. donc vraiment moom euh, xam na bu baax. Euh, lan mooy conseil départemental xam ne ban rôle ban taxawaay la fa war a joué. waaw mais maître nag bi xanaa duñ ñu ko may nag PDS lu tax nga génn fa rek ci gàtt. alors PDS li tax ma génn fa dama d'accord woon ci ni ñu tànnee seen candidat ci élection présidentielle. Mhm. amul démocratie te comme man tolluwuma fu may dem di werante ak président Abdoulaye Wade j'ai préféré bàyyi parti boobu dem wuti leneen. loolu la waaw sama la gënal du bañ naa la bañ naa la mm. beneen bi nag mooy waa Yanamar Fou Malade nga xam ne sa artiste la nga sopp ko lool euh, temps bi yama Yanamar di yëngal tàng dama daan gisee ak moom di waxtaan ak moom ba ñoom ñuy sàkku gisee ak président Abdoulaye Wade non non wu ñu gisee ak kenn man maa bëggoon mu gisee ak président ñoom ñu gisee ak président mais mosuñu sàkku gisee mhm. jamais mosuma wax ne ma dañoo bëgg gis Abdoulaye Wade mhm. man maa ko doon fexe nuñ rencontré président Abdoulaye Wade que moom rek laa ci xamoon waaw moom laa ci miinoon yi xam naa waaw mais moom laa ci miinoon. gisa ba lu tax. non amul après président moo ma ne. Euh, booy euh, si njëli wax na ku mel noonu. waaw am na kuy dox loolu. Mhm. waaw. yow tam nga génne ci sa ba waaw ma génne ci sama loxo. maa ngi lay sant di la gërëm maître Souleymane Ndéné Ndiaye jiite parti bii di UNP euh, doonoon suñu gan ci sorti nekkoon tamit ancien premier ministre du Sénégal. jërëjëf Ndeye Fatou kon nag mbokki Walfadjri maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. Euh, di ñaan yàlla jàmm yàgg Sénégal di ñaanal encore une fois président Abdoulaye Wade lu yàgg yàgg yàgg di ñu yàgg xelal euh, ma am yaakaar ne jàmm daal dina am Sénégal euh, pas jàmm joo xam ne ñëpp dañuy dajaloo gouvernement de xam naa majorité présidentielle élargie loolu waxuñu ko. ndax loolu mënt nekk waaye nag. Mm-hmm. ñu bàyyi saagawante beeg xastante beeg ŋaañante beeg. xuppante bi yooyu moom euh, du jëmale réew kanam. waaw mm. te Ousmane Sonko ko delloo place am. ñu lay sant bu baax euh, di la gërëm euh, maître Souleymane Ndéné Ndiaye. gërëm suñu auditeur ak téléspectateur yi doon teewlu seen émission sorti gërëm nag bu baax Papis Mbaye mi aajo ci wàllu technique bi. tey nag moom ñu ko ci jàppale ñu ci mel ni Ousseynou Sall ba ci Fallou Mbaye ci walfnet point com di leen di sant bu baax di leen di jaajëfal Mamour Faye du ñu ko fàtte oustaz Assane Diouf ak soxna Khadija Niang waaye nag Ndumbe madame Touré borom salon Fatou Thiaw Laye nekk fële ca Maris ñu koy gërëm bu baax ci coiffure bi mbokk yi jaa ngeen jëf jox leen rendez-vous beneen ay bés ci beneen émission sortie incha allah